asalaamaaleykum suma gaañ yéen ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax xale ma defal suma mbaxana bi waaw tey nag Madi Bachir mbaxana la sol tey ndaxam mu ngoog yéen ñëpp nuyu naa leen bu baax di leen seet di leen ziar ah ma ne ko ne yëpp ku nekk foo nekk fekk naa la foo nekk ma jox la loxo leen ñaanal yàlla bu baax a baax a baax di leen wax ne ah gis ngeen ne taay yi moom wax dëgg neex yàlla Madi Bachir ma ne ko ne daf leen di indil outdoor te wax dëgg neex yàlla mën na ko ñu bari apprécier nañ ko di wax ne oh Marie lii is nice you know dafa lii dafa rafet ak yooyu noonu ngeen apprécier ko bu baax a baax a baax ah, a mën ne ko ne mu ngoo kon yéen ñëpp leen wax jërë ngeen jëf yéen nga xam ne ñëpp everyone ñoo xam ne apprécier nañ um, suñ outdoor programme bu ñoo indi understand nga njëkkee outdoor den after ñu ñëw tooga waaw macha allah macha allah mën ne ko tey nag ma am fi suma mini girls yii nii waaw ñoom ñaar mën ne ko ne Zeynaba Betty Kele moom dafa bon moom bëggul Camara Moussa Bassir so tey la Father's Day today is the 28th the 28 of June si lañ film lii nii mooy Father's Day déggal ma Zeynab lu ndaw li <laughs> it's the 28 of June today so léegi xam naa bés buñ ko upload dina fekka is after the 28th laa ko upload so ma ne ko tey mooy 28th of June so ñuy nag ñëw film ah, Father's Day dina loolu la gars wax ne la ñoo def ne ñu ñëw fan la affaire bi parce que last year Father's Day noonu la ma gars def dañ ne ñooy tooga bee kéeg la woon sax ñu nekk ba si digga ñu ne teppe daw ma bi it was half and half aha aca soo léegi ma bàyyi leen aca Betty hi and welcome to the channel uh-huh and what um, um, we are going to cook some roast chicken mm-hmm and some, what was that thing called? Some again? roast chicken and brochette. Brochette. Mm -hmm. And salad, daddy's and favorite salad. Daddy's favorite salad. Mm -hmm. And we are going to cook. And some potatoes as well. Yeah, and some potatoes. And what about you, Zainab? Hi. Yeah, hi. come on. Welcome to Say Tomatoes. <laughs> roast chicken. Oh, roast chicken lah. Okay. ok léegi nag gars yi wax nañ ba pare fi dara lu am fayda so léegi ñëw wan suñ am su ko defee ñoo defar suñ roast chicken la ñoo ba pare defar tam brochette lamb brochette waaw ba pare bu ganaay defar waaye dama ko def si favorite salad tam as well léegi tamit ñu ngi defar juice already mu ngi ak couple of gizzard dinañ ko defar soo léegi nag ñu ñëw nag start cooking abeti ah, uh, let's start cooking yay <laughs> my yay so now we have our ingredients okay wait all right so -hmm. Okay, let me just turn yeah. the camera. Let me. Mommy, can I say So hi, these are our ingredients. Mm-hmm. So we have some mm-hmm. chicken, double mm-hmm. cream, and we have some single cream. We're gonna mix it into the potatoes, mm -hmm. and then you're going to say cucumber, cucumber, and some mango, and, and some mango, mm -hmm. and tomatoes, tomatoes, mm -hmm. and what are these? Lamb. lamb, lamb mm-hmm. bell peppers, mm -hmm. for the brochette, chili, mm -hmm. chili, and then our favorite seasoning yes seasoning bi daal yéen a xam ngeen ne saay bu nekk moo ñu ko yombalal moo te gis ngeen fi sax si ingredients yu bari parce seasoning bi moom monyo ñoo defal suñ Yep, gis ngeen lii moo nekk sun chicken and lamb seasoning bi Wow, so ku ko mos a gudd rek comme ni ma leen ko dexee rek daw dem make seen purchase si suñ website bi nga am fii ni tamit suñ green seasoning bi bi dama ko dama use woon some so mu def so the green seasoning is here as well very nice beautiful ñu am fii ni tamit suñ chili seasoning salt bi waaw roof bi rek moo fi nekkut parce que du ma ko roof because of xam nga xale yi moo tax bugguma ko roof soo lii lañ fi am soo léegi xaaral ma am ok léegi pu puus leen nii man ma wax ingredients si léegi fi suñ fu whole chicken waaye chicken parce que am kuñ koo toogal moom bëggut am like chicken skin skin bi même soo ko toogee soo ko rostee noonu sax xam nga léegi-léegi soo ko dee roos warloo koo génne da nga koo bàyyi noonu understand nga su moom su demee ba roos dina lii waaye moom bëggu ko si sax bëggu ko see fiil so dañ koo raxas ba mu set dañoo leeli am skin bi suñ paree léegi nag ñu ngi am fii nii tamit suñ lamb steak lamb steak moom laa bëgg a def brochette as well am fii nii tamit suñ potatoes moom la ñoo def suñ am naka lañ koy potato si dañ see bu def am double cream ak single cream moom sa ak suy si suñ suñu sol bi rek dugal si suñ biir oven après nañ defar tam suñ salade salade bi dina am euh, am tomatoes dina am tamit dina am tamit lii cucumber pe na am apple apple bi ma ko fàttee génne waaye naa leen wax ba pare na am tamit paas paas li mu ngi nii as well so you see suñ ingredients yi ok pousse leen yéen na da ngeen neexut a invite léegi lii moo nekk suñu ingrédients yi gis ngeen soo fu mu nekk nag léegi dañoo ñëw nag start tooga ah. high five Betty. and Zeynab. and Musa is a camera shy so Musa moom ñëwut waaw Musa Bachir moom mu ne moom xam ngeen moom moom mooy loolu so moom moom boy la moom moom góor moom mi ne bokkut ci tooga bi. ok léegi nag ñu ñëw nag gis leen ne ñu ñëw tooga suñu roast chicken am um, brochette ak suñ tomato bu neex <coughs> astafurlah potatoes yu neex. with the salad. Potato. Well. Yeah. That's so see you guys later. Yeah. so léegi nag ma ñëw nag ñu génnee suñ der bi der am der bi deri ganaar bi ne nice away nga xam ne si ganaar mu naa der bi bi ko ñëw raxas dina gën ñi ma war a oo ñu ngaa xeex ba legi gis nga c'est ma ko def té ma ko def rek ba legi ñu ngaa xeex te su ma leen fi ooyee pour gars yi ñëw li tay lay lay walaay talaay cinéma bu bu mag a mag a mag ngeen fee seetaan cinéma bu mag la woon mo ngeen fé seetaan ma raxas suma loxo yi ku la ci dé moom la doon jéem a dugal waaye dama dugal a dugal ba sonn mu tay suma loxo ba bañ a egg ma gënné ndànk man si léegi ma ñëw ok ok Betty tas mo oye eh, Betty lu ndaw li ñew nga ndaw li mom la nga bari ay di ngeen ko xamut rek mu nekk ay ñëw season loxay ma loxo ko def bam set nag wax dëgg ne yalla so dama def ni pour affaire si dugg season bi gis ngeen ko season di mën ko dugg waaw dugga ko ba dugga ba duggati ko ok so fi def tamit ok ok ok ok Zainab you and Betty you can go now ok thank you thank you ndax xanaa léegi gis nga yéen teman. dama <laughs> léegi xoola fu mu nekk rek xaaral ma on behalf of ñoom dégg ngeen parce que ñoom seen problème neexut a réglé problème yi la xam nga xeex neexut a réglé loolu ma def first of all xaaral ma njëkk a suy salt bi baax te Zeynab rek nga ñëw déggal yéen Zeynab rek rek rek rek rek nga ñëw salt dafa mel ne moom xorom rek xorom ko. moo nekk ni gis ngeen jigéen na naam si seneen ada dama seen da amul ma wis dafa def laa màkka yi bu ees xaaral ma jëndaa rek mom nag lii di la dama ko tëj tëji ndaanaan nak hey lii mo tëji ñak xel hay hay hay di xaaral ma dem ci góor gi mu dimbalé ma ci lii boobu ibil na ma soo mu gokk ñaan suñu ci gën lam ci seen mbay saf sàppa def di leen wax na def ko ci ko utagut rek daw len gaaw Wow, daw lihat aussi suñ si sinin bi de neex na lool saf na sàppaajoon na maa leen ko wax waaw ne nga lu am rek ngaa def lay wala jaru sax nga see def lu nga dafa as well soo léegi ñu def nii dugal si ruqa-ruqa Ina dina ma gën a xam ba pare tamit dina jox tamit sa chicken a very nice color as well su dee da nga rus wala da nga koo fry loo ko bëgg a def rek dina ko jox a very nice beautiful color ñu toll def ngeen gi ngeen lu em nekk di ngeen lu ndaw li maa parce que moom daf ko sisin waaw waaw so ku ko mos a gudd rek comme ni ma la ko waxee daw leen sa website bi home cooking with Marie Bashir dot co dot uk ngeen jënda pocce seen seasoning ni ngeen jënda set bi waaw ngeen jënda seen seasoning set set bi dina la jox ci Kinan Lambena bu mag bu 500 ml mu jox la green seasoning bi 340 ml mu jox la roof 250 ml seasoning salt 250 ml xanaa wax jeex na lu ko am sa waañ moom. Mm. gis ngeen xeex bu mag mag baa ngoo xeex bu mag bi bii laa doon xaar bii laa doon xaar de non lii bu seen kër yi dimbale leen ma rek dama leen bugg a laaj. laa na loolu yëpp ma stock fii nii. nga ngaa ñëw boole si waa gaa gis ngeen léegi fu nekk ma ngi ni ma ngi fa suma li sweet pepper la thyme rosemary chili pepper way dama gëné xoox yi pour bu saf so bu laa ko moom laa ci dugal fi pour mu am chaf ko waaw waaw rose lañ wax rose rose de la wax mam léegi ni la ko def suma ko defé ni ba paré bam dugga xam nga lii da dafa ñor dafa sey léegi ma jël nak tanka gi def ko nii boolee ko tanka gi la bu ko def ni xam naa ganaar ma su boobu ndeysaan sori chicken rock ni lañu def chicken bi def ko ni pour bum tas tas hmm. so gis ni léegi fu mu nekk fi duma ko ñaw dama ko bàyyi nun ko def affaire di siit lay lii la nga am na suma ma demé to the end xam nga dam ko to the end fi xam nga li heñ na ken do ko lek dama ko gëni nga gis dina am space mun def ni rek fekk cafka gi dugg na si biir gi yéen a gën xam hmm? mu ngok motax nak ni la ko legi dama ko ñëw nak mom legi la ko ñëw dugal bota tax frigo bi mom lañ paas suyaat ni rek jël ndànk teg ko ci nii la toute salt to add Sugar. Hey, this straight in the oven I'm gonna straight in the oven waaye léegi sini mu nekk xas suma am laan bi pour brochette gi ngeen green seasoning bi def la faade Wow, waaw sisini daal yaay bañ origaay tànn sa bu la neex gede soo bëggee dama green bi soo bëggee dama chicken and lamb bi wala nga demak ak sa roof wala daal nga dem ak sa seasoning salt pour soma bi seasoning salt bi sax moom pour griller soma gi génn si biti rek kari, nii rek griller beneen affaire gis ngeen moom si amut mustard, amut darah dañ ko def cuisine bu neex la nak ki bii ëpp na wallaay asim so mu ngi ki rek ngay def rek pare ca nek na ñew nak sol suñu brochette bi waaw sanni ko mom tamit ci bir rek def ñu ko bu rek la waa suma gaay gis ngeen fu nekk suma potato si mom la jël ni ras ko bam set di ngeen ma slice ko round round round slice Non la ko slice gis ngeen naka laa ko defee nii ko def so ma ñëw nag def si suma si war def dañ moom tam moom tam dañ koo biir oven bi recipe swedish la am na la ko gars yi di pronounce waaye xam suma am swedish yuy seetaan xam dinañ jëm ñoom dinañ ñoom dinañ xam tur bi am recipe swedish la is very nice recipe bi ne suma sister boobu di ami nicole waaw lima len wax rek ne len ne moom ko mom dal suma ma yu la jox waw di togg rek di yakati mu génn di togg di yak rek ah way moom mun a yakka waaye mun a waaye te mun koo joxe so li man dama fa def suma seasoning salt bi mom la fa bëgg a def seasoning salt bi nag optional la So, amé benen façon way ya, ma ko su bëgg rek pour mu am nga rek takarna mu am cafka waaw way xam naa ne sax comme ni ma ko waxee rek ku nekk rek ak nga defee nit na la ko joxee ni na la defal ko ni yo nga bëgg fa yo yokk sa exactement sol ko laa fas laa fas nii pour mu am flavor parce que moom am na xaat si already double cream duma def yëpp ma xaat juste ak fas yooyu ñor si tamit moom so so léegi gis ngeen maa ngi amee ni tamit cheese cheese bi suma démé ba nga xamné mu ngee waaj ñor ci la see suy ci kaw waaw suma ma demee mu ma suy ko ci kaw du tam ab nan la de waaw waaye tamit dina seen ñu ñu ñoom ñu ko rek sànni ko si ko bëgg bay ko ñu ñor affaire gis ko mu way kon li li dafa neex de rek bii waaye nag mu wan si ne waa rek la ko dee def de parce que moom soo ko toppee <laughs> du baax soo mu ni bi ngeen mu ngeen nanka nankaa ni ngeen mu ngeen nanka nankaa ñun so dafa rek nag fi ma ko toog teg xala toog ni de la la gën ci gisee gis ngeen soo léegi dama xar ba si kanam bam mu li ma génnee li ma grill ko nak ci kaw su ko defee nak mu na a brown am brown ko la bu

ne am nañ suñ a very simple and table setup mais ne ko ne very simple table setup lañ am fii waaw suma gaay gis ngeen suñ brochette bee ngi nii defar naa ko nii ba pare ok dama ko ñu oven be. so léegi ma dugal si oven bi ataala oora bakka ko fa ganaar gi moom mu ngee def meninam moom meninam mu ngee def de nanka nanka waa gars yi léegi nekk nag suma salade bi laa ñëw defar salade bi ma fi am rek kekumba tomato salade bu digar nga jël ñaari apple ak tamit mango ñaari mango mango bu digar la gis nga dafa digar so mom lay defar ma len won process bi parce que amna ko suma channel bi already man ko defaron fogna ci si badé si bas bi moom that process so non la dama da nga xol yëpp rek nga salade ko together rek bolé ko together So paré na nga def sa salade si salade sa salade dressing lo rek la is very nice dafa def day war a am pineapple su féké bo nga pineapple nga def ko tamit is very nice dafa neex ba bu ko dé so mom la ñu def ci ni salade wa suma gaay gis ngeen fu nekk mis na salade bi mo nekk ni mango bi kikumba tomato salad ak apple ak parsley so léegi ma am fi suma salad am um, dressing de nga gaa heh ni ba léegi suma ma la xeexee ba léegi xale yi ngay xeex man dama àtte ba sonna fi nek wa xale yi maa leen gis ngeen mu ngi ni mint sauce seasoning salt suma seasoning salt bi olive oil tuuti limon ak bas balsamic vinegar Zainab mungkin dulu Zainab xam nga fan la bari ay waaye jaaxal na ma te mooy tooñ mooy tooñ mooy jooy mooy tooñ dégg mooy tooñ mooy jooy waaye su ma ko ba mbukk ko benn dina <laughs> xam ne lépp dégg la mbukk ak boo ko mbukk ko dégg <laughs> daa ko mbukk ba mu waar waaye dina dafa jot xool torop yéen soo mungoo gis ngeen mu ngi nii waaw very nice very nice salade dafa neex a lekk mun ngaa lekk bool bi yëpp te doo ko yëg di nga lekk bool bi yëpp parce que yaa ngi yëg sukur bi yaa ngi yëg waaw very bi nag pere na suñu aar come of the chicken bee ngi nii moom dafa dégg ndigal nag fi ma ko tegoon foofu la toog ba léegi randatu poussé wut waaw mu ko gis ngeen fii lañ ko lee ba pare ñu dem nii am suñ potatoes bi bu neex bi waaw nga sànni nañ ci si kawam wit suñ cream bi. nga am fii nii suñ crochet moo nekk ba pare nga am fii nii tamit suñ salade am fi tamit suñ mango lassi bi ma ko mango mango lassi bi moom benen affaire la so mom tam ñu ko am fii waaw waaw ma may ci bi tuti tamit <laughs> goog soo gis ngeen xale yi nag lii lañ defaral ñu ne papa nii ndax man man la sax man la parce que ñoom yëpp dañ ko xeex ñoom yëpp dañ ko lañ ba so man maa ci nekkoon di leen xettali waaye on on behalf of nyom la on behalf of nyom, wa so mu so soo mu ngi nii lañ am si table bi so mu man ma ne ko ne mu ngoog lu neex Ini xam Ini ñu defar ñu ta dee nga ciis bi ngi noonu si kaw tamit bi mau ko ma topp ma wane te lii leen leen amaloon from Betty and Zeynaba Musa end up si man so mu ngoog mu kon di wax ne di wish am um, papa yëpp a very happy Father's Day hmm? di wax ñaan ñaan leen yàlla defal jàmm ñoom ñoom tamit suñ kanam ñu yàgg fi di ñu dimbale ñu di ñu bambaanal xale yi ah macha allah. so ngokunye uphumela ko gars yi def nañ suñ dîner ba pere léegi fu mu nekk ñu ngi nii am suñ dessert lii custard la ñu am fii suñ cake fii ñu am fii ni suñ strawberry with chocolate soo lii lañ am pour dessert waaw soo lii am strawberry with chocolate bi moo nekk something like That one looks like a brown straw. Okay, this move. For, this for daddy, okay? Yeah. Just for daddy? Uh-huh. Is it yummy? Mm, I want to have some. Oh. Can I have some, mommy? Yes. I'm not last strawberry. No, no. Mommy, come on. Strawberry. Baax na soo mugoo mu ngi nii boobu noonu def it's nice So ko dippee with the chocolate together lii ñu am fii nii tamit suñ costard bi soo dee costard bi xaaral ma defal borom borom anak ah, kalian lañ ko def borom deh, day ma defal kéegam and then like this okay, it's okay so ma ah, mm. oh it's yummy and then You give it fu mu nekk léegi suñ Father's Day di la foog na fu mu nekk suñ Father's Day lifin bi mut na am nañ suñ am suñ togga nañ suñ am dina bu neex gis ngeen niñ ko xale leen ko wane ñu ko lée bam nice léegi ñu ñëw tamit tamit am suñ dessert as well so mu mu ngi nii so léegi Betty ak zainab ñom ñi nyom ñom ñoo toga way toguñ dara nañ ma fi ak xex gu dul jeex waaw so dimbale wuñ ma dara lu muy xex <laughs> waaw hana hana afta bam pere dimbale nañ ma ci teggi bi teggi waaw teggi rek lañ def so léegi mu ngok so guys di len wax ne yeen tamit ah dina len gissat inshallah rabbi very soon su ya yàlla ah di len wax thank you te bu len faté bu len ok shush bu leen subscribe su kene ne da nga ñëw pour seetaan vidéo new to the channel bul faté subscribe ba faré tamit share suñ video bi ak tamit mën nañ mën ngeen ko like as well so di leen wax yéen ñëpp ngeen jëf dé ngeen mom nga laajte mo costa mom dal gis na né kay gën costa bi dal mom na am So mu go guys. Ben. So legi guys di len wax ne <coughs> dina len gissar inshallah ya nañ ko fek ay at yu bare bare bare ñuy celebrate suñu jëkari ah ah suñu papi doomi ñun tamit ñoom tam ñu celebrate ah Mother's Day tamit ñun tam ñu ak suñ tànte ñu celebrate ñu Father's Day la tey ñun tam moo ñu dugal ñoo spoil nii so mu ngi kon gars di leen wax ne thank you very much for watching see you guys later soon inshallah say bye thanks for watching thanks for watching yeah I say thanks for watching Zena thank you <laughs> bye bye all right bye now we can